asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax tey jii nag ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy guddi euh, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, tey ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy kër gu mag euh, ñu xam nag fi nga xamante ne moom mooy kër gu mag sëñ Touba jaaroon fi def li nga xamante ne moom mooy fukki at ak juróom tey nag si bésu Seydina Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag ñu fas yéene fee amal li nga xamante ne moom mooy juddu rasulillahi tey nag ñu ñëwoon fii fii nga xamante ne moom mooy kër gu mag euh, pour euh, andil leen maanaam bés bi nan la ko waa kër gu mag euh, ak waa njaareem ak ñi nga xamante ne ñoo jógee fépp si adduna ñëw fii si bés bi pour mën a fekke li nga xamante ne moom mooy bésu rasulullahi bi kon nag tey jii nag ngeen topp rek ñu ànd ak yéen si li nga xamante ne moom mooy guddi sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd ak yéen def li nga xamante ne moom mooy nit ñi seen xalaat ak nit yëgee li nga xamante ne moom mooy guddi gi incha allahu rabbi bu ngeen ñu toppee ak nga xamante moom mooy info 7 incha allahu rabbi info 7 TV euh, ngeen di seetaan saa su nekk li nga xamante ne moom mooy information yi ñu mën leen koy dëgtalal kon nag mbokk yi ànd leen ak info 7 TV incha allahu rabbi dinañ leen dëgtal lépp li nga xamante ne mooy xaw si guddi rasulillahi bi sant yàlla bu baax rek di julli yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci yi ñu dajale fii lu jafe-jafe la fii rek lañ ko mën a amee kër goo xam ne Serigne Touba liggéeyal na fi borom fukki at suuf si am da wàccuwaay boo xam ne seneen suuf jomb na ci moom ndax Sëñ Tuubaa fa am lii mu fa am kon suuf su mel nii bis bu mel nii di bis boo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko fonkoon lool ndax koo xam ne dafa wax ne yonent bi daf daan ñëw di ko defandoog moom yaakaar na loolu lu jafe la te fii ci boppam wax nañu ne yonent bi fekk na ko fa taay guddi gàmmu ba ñu nodd mu doog a génn dem ñibbi doo ko dem kon barab bi ci boppam sëriñ bi yonent bi fekk na ko fa ba taay ci ab néeg ñu bokk di dundal gàmmu gi ba ñu nodd yonent bi doo ko jóg dem kon loolu lu jafe-jafe la te loolu yaakaaru mu ne yomb na fenn bu nu ko yàlla mayee war na noo sant bu baax a baax a baax a baax te doolee santaat bu baax a baax Sëriñ waa ndax mën nu ko fay ndax suuf sii suufu ñaanukaay la di barabu siyaar di bu barkeelu kon yal nañu ci yàlla daje léegi lu kawe sunu njort ñun ñu fi daje népp te luñ fi ñaan yàlla nangu ko te defal nu ci kawe sunu njort te rafet naa ci njort incha allah. waaw garab googu Serigne Touba dafa wane woon ne moom gàttulu fan. ndax garab gi moo ko jëmbat ci loxo boppam jërëjëf mbokk yi comme ni leen ko waxee rek si guddi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam tey ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy si bayti fii nga xamante ne euh, rasulillahi euh, salallahu alayhi wa sallam muhammad euh, daan na fi fekk si ki nga xamante ne moom mooy sëñ Touba waaye nag bërëb bii ngeen gis ni li nga xamante ne moom mooy jumtukaay yi nga xamante ne sëñ bi moom la moom moo fi nekkoon tey jii nii moom ngeen fekk fi nga xamante ne moom mooy bagage muy waxande yeeg yi nga xamante ne moom moo am solo mi yëpp mi ngi fii nga xamante ne moom mooy si bayti ñu ñëwoon fi euh, si li nga xamante ne moom mooy guddi rasulillahi bi euh, ñëwoon ak ñi nga xamante ne moom mooy ñi ziare ànd ak ñoom ak li nga xamante ne moom mooy info 7 euh, kon nag ngeen suivre ñu tey jii ñu won leen li nga xamante ne moo nekk si biir bayti incha allahu rabbi waaw bisimilahi rahmaani rahim comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy si kër gu mag si barab bi nga xamante ne sëñ Tuuba xaadim rasul yonent bi yàgg na koy fekk fii di ànd ak moom ba mu euh, guddi mu sog a euh, daal di euh, yeeweeku daal di dem tey jii nag ñu fekk fi ñoo xamante ne ñu ngi ziare li nga xamante ne moom mooy barab bi ba pare si guddi gi nga xamante ne moom mooy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa duñ def rek lu du laaj ñii nga xamante ne ñoom ñoo ziare si nan nan gisee li nga xamante ne mooy guddi googu sëñ bi nan nga ñu mën a wax si li nga xamante ne moom mooy guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam borom Tuubaa taxawitani makkaari daare ni dafay te ni xaareen war naa leen ñu leen siyaare bu baax yéen waa site bi nga xam ne da ngeen ñëw bàyyi seen itte yëpp ñëw di fas yéene yéene feeñal seen yéene ci liggéey bi mu guddik Seydina Muhammad ma alayhi wa salaam waa gàmmu moom ku ne xam na ne suñ ko waxee sa xel lu dem fenn fu dul njaareem ndax Sëriñ Tuubaa moo ko doon wooteel boppam waaw mu doonoon itteem lool sëñ sëñ bi moo ko doon wooteel boppam moom guddi gàmm mu doon itteem lool mu doon lu mu lool ba ku ci nekk. dégg nga li muy wax ci xasidaam yi ci guddi gàmmu taxsimuhu bi sunnati yaquudunaa li jannati bi hisdiyaadil minati li muxlisin muazami Sëñ waa wax na ko ci guddi gàmmu dem ba wax ne fa man taha man xayyaa li man lahu xarxarraa mu bajjilan fa xabbaha xayraati ahlil himami waaw dem ba ci biir mu waxaan ni nawirul xalba sharaab min zalika al maabil mujaab wal xalbu yox yi doona wan shaqaa yaxtami loolu lépp ci guddi gàmmu lay leeral njëriñam ku ci ndox ma waaw ku guddi gàmm lu ci nekk rek mooy wan ne moom fonk bi mu fonk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gàmm ndax moom su gàmm jotoon kuréel yi nga xam ne ñoo doon jàng ci biir guddi gàmm gi moom si jëmmi boppam moom sëriñ bi moo leen doon berndeel kon kooku ku bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ku fonkoon guddeem gi la muy guddi gàmmu ah, bañ na ko barab bii nga xam ne fi lañ nekk muy fii muy bayt ñi kay wax kees gi nga xam ne fii la mujjee wuyu ci suñu borom ci zahir fii am na ci kees goo xam ne nii tamit daane ko fekk ci biir njaareem gii kon nag bu ba site bi ñëw di fi liggéey Serigne Touba ba ñëw di fi leeral di gëstu mbiru Serigne bi ak mbiru Seydina Ahmed ci gàmm kon dañuy wax ne yéen seen liggéey man na ñu ngi leen li ngeen ci bëgg ak tawféex bi Serigne bi daje leen ci lu barke borom Touba. sant borom Touba mi nga xam ne ñoo ngi fii ci béréb bi nga xam ne foofu la wàcce woon liggéey ñu ciy sant liggéey bu sant yàlla bu baax eh, di sant suñu yàlla sant suñu borom. ci am ci man maa ngi jógee Bambey ci quartier bu njëkk bu ñaan naan Batal Njakalak waaw foofu laa bàyyi ko waaw fii nag dama fi tam di ñëw di siyaar di fi gis mbégte di yokku di fi ñëwaat rek waaw. voilà dañ koy dañ koy jox cer di ko màggal ku ci mën na jàng alxuraan nga jàng alxuraan nga moyandi ko lu bon di def lu baax ci guddi gi yépp loolu lañ ci sant xale yi. ndax guddi gu rëy laa ci guddi yi wa waaw béréb ni nga ko gisee nii rek la gis nga ko boo demee ci biir eh, wax nañu Sëñ Tuubaa yëppam yonent salaam alayhi salaam ko fii ci béréb bi waaw waxtaan bu fekk ko fii ci béréb bi fii ci njaaram gii asalaam auzu mi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi ba pare ñu ngi sant Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg wax dëgg yàlla bés bi moom kontaan nañ si lool taw féexe na loolu di santaat suñu jaara suñu jàmbaay Cheikhul Khadim moom mi ñu xamal sangu sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu gàmmu gi lii lépp moom lañ koy santee sant gi daal si moom la commencé te si moom lay yem tamit. waaw tey ñëw nga ziare si eh, di ñaan li nga xamante ne moom mooy sa soxla eh, lan nga gisee li nga xamante ne moom mooy eh, barab bi ak tamit nan nga gisee li nga xamante ne moom mooy gàmmu gi. gàmmu gi moom neex na moom mën naa ni gàmmu gu mu mel nii musuma koo gàmmu ndaxte barabu Cheikh Ibra laa jóge dellu si fii si barabu Sewul Xaddim kon daal maa ngi sant yàlla bu baax daal maa ngi sant yàlla daal maa ngi soññaat sama mbokki jullit yëpp na sama mbokki taalibe ngeen gën a jàppaat bés bu baax te xam ne Seex Xaadim nekku foon lu lu tànk yonent bi ak liggéeyal ko kon képp koo xam ne taalibeem nga war nga see nekk di si roy ci moom ci jéego yooyu mu nekkoon di def si yonent bi ci la nekk di ko liggéeyal di ko tagg ba nim fi làqoo ci zaahir kon boog maa ngi soññaat bépp bi ak bépp jullit rek fu waaye mënti nekk rek na passeef si liggéeyal sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi salaamaaleykum euh, sëñ bi euh, tey jii nag ñu fekk la fi nga xamante ne mooy bayti euh, tey jii ñu bëggoon a xam rek tey jii si guddi rasulullahi bi di gàmmu gi tey jii nan nga gisee li nga xamante ne mooy guddi gi ak tamit nga wax ñu lan nga fi doon si li nga xamante ne moom mooy si biir kër gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe maa leen nuyu kenn ko ñu turam ak santam fii nga no fekk man maay Bassirou Thiam ci daayira tundoo Serigne Bassirou yi Serigne bi toog ne moo suñu jëwriñ mooy Serigne Bassirou Thiam laa dégg ak Serigne Bassirou Tine ak Serigne Bassirou Diagne nga xam ne ñun mbaar mi boobu ñoo ko taxawal ci ndigalul sëñ Mountakha mu jaar ko sëñ Fallou Bachir ñu góorgóorlu ànd koog mbokki taalibe yi yëpp ñu di ko liggéey ba agsi fii bis bii nag liñ ko dundee laa da nga mooy tourné sëñ Bassirou ci boppam moom la ñu sëñ Moustapha moom sëñ Bassirou joxoon ndigal ñu àndandoo yëpp booloo taxawal daayira bi ñuy ñuy daje laa da nga fii ci dëkk bi ak ci yeneen dëkk yi ak yëpp waaye mu tànn bisu gàmmu bu ñëwatee laa da nga fu fu daayira nekk ci adduna eh, si waaw ci biir réew mi ci muy àdduna si yëpp ñu ñëw daje fi kenn ku ne indi si addiya fii nga xam ne mooy siège social bu social bu mag bi nag moom mooy fii ci ñaare ma xam ne fii la fii la président doon na bi nekk muy sëñ Bassirou Thiam mi toog ñuy mu tànn ñu guddi gàmm ñu fiy daje ba lépp loo xam ne lay nit ku ñu fi ñëw ñëpp bu ñëwee ñu dalal leen teral leen dajale at yi jébal ko ki fi nekkal Serigne Bassirou mu jébal ko Sëñ Touba. li nga ci guddi gàmmu nag mooy li ci jot a xam bëri waaye li ci jot a xam man mën nañ cee leeral tuuti rek ndax boo demee ci suul teg si moom sunnati yaa xawdu naa li bii si yaat mi ne li ma waxoon si ko màggal te dëppale ko sunna waaw kon sunna soos ci boobu ñun moom la ñuy màggal di ci taxaw guddi ak bëccëg sëñ Tuubaa dafa ko daan màggale fii ci njaareem ba fu ne màggal waaye bi ñu ci yar ne li gën a bëgg ci ma euh, ci gàmmu fii la ko amee ñu ciy dox di ci dox daa dégg ba mu fii ci ñun dégg nga sëñ Moussa mi xam ne moo ñu joxoon ndigal nag ci daayira bi ñu boko moom nekk fii ba ba mu wàcc liggéey sëñ Mountakha nekk fi ñu nekk ak moom laa dégg nga fii boobu léegi mu boole ñëw suñu alal ji loolu ci boobu mooy sunu mbégte di sunu lépp gàmm gi bu ñu xëyee ñun fii dinañ jàng alxuraan jàng xasaayit waaw jàng jàng alxuraan danañ jàng xasaayit xasaayit sëñ Tuubaa nabi xasida yi nga xamante ne bii nag yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ne moo leen ndax yëpp lañ taamu waaye yi nga xam ne gannaaw ci guddi gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mawaahib bu ak mu xadimaat ak ma fadel bisri ak yi nga xam ne sëñ bi da koy euh, da koy bind pour di julli ci Yonent bi sallallahu moom lañ ëpp ci ñun mooy eh, eh, ci liñ fi jàng ak yeneen ñu mën a jàng gannaaw bu jàng alxuraan ba noppi nag def ay salaatu ala nabi dégg nga def ay ay ay istighfar fi ñëwee laa de nga xéewali fi suñu borom bi indi laa nga jaarle ko ci bindeef yu baax yi yëpp ku fi ñëw dañ ci teral waaw loolu mooy li nga xamante ne laa de nga mooy suñu toogay fii waaw di sant ñi nga xamante ne laa di ñoom ñëpp. ñi ngi jàppalaa di nga ci liggéeyu turndoo Serigne Bassirou yi waaw ndax kenn ku nekk am na fële yàlla féetale waaye noonu suñu borom dana baax tudduñu suñu Bassirou sëñ Moustapha jox ñu ndigal loolu ñuy dund lool di dund ba fii ñu euh, euh, toog nii di ko wax di ko jëfe kon loolu moo xamante ni laa lu ñu yàlla séddale waaye ñu ngi ciy sant suñu borom laa dëgg euh, suñu borom di ci sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm sëriñ Seexul Xaadim di gërëm sëriñ Moustapha waaw kon baax na jërë ngeen bismillaahi rahmaani rahim tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy kër gu mag si wàllum li nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne moom mooy guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di gàmmu gi euh, tey ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy mbokkatul euh, mubarak albukar mubarak euh, tey ñu ñëw fii nga xamante ne mooy kër gu mag tey jii ñu fekk fi ñi nga xamante ne ñi ngi fii si biir kër gi tey nag ñu sësee nañoo waxal li nga xamante ne moom mooy euh, guddi gi ak li nga xamante ne moom mooy euh, kër gi li mu làmboo waaw onze billahi mina seytaan bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala salaatan wa salaaman wa barakatan taambuli biha saadati la saxawata wa waa waa ko barin kala suuta mun ka amin ya rabbal alamin wa salli ya ahadu salima alaji kafiktu kalama sayyidina muhammadin wa ali wa sahbil ali wa takfini ablante amar wal yakun bi lada kulli qarat waaw ñu ngi leen di jaar yéen waa info 7 leen di ndokkeel ci bis bi ndax bis bi moom ku mu yàlla dimbale ba nga fekkee ko rek xamal ne santal ndax suñu borom nee na kii nga xam ne moom lañ yaakaar tey ëllëg daf na guddi gi soo ko doon nelaw rek sax yemut ak guddi yi nga fanaane jaamu yàlla beset kon xam nga guddi yi rawante mu ne guddi gi soo toogee di déglu njàng mi ñu lay jox ñamu suukar wala ñamu saf xorom ba beset yemut ak beneen guddi mu ne guddi gi ku jël ndox teg ko ci digg fa ñuy jàngee jàng beset ku ci naan lu ne mu kon guddi gi yemut ak guddi kon ñi ngi sant yàlla ba suñu borom may ñu wér ak wérle bañ fekk guddi gi googu ci la dolliwaat santaat si beneen cant ci biir cant googu mooy luñ doon murit dëkkaat njaareem ñu tuddee ñu Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu tuddee ñu Cheikh Modou Bachir loolu mooy cant gënu koo màgg ndax ku ne xam ne Bachir ci tudd suñu borom yi la bokk te it ku ne xam ne 1895 bu sëñ bi dem ci géej gi ci la suñu turandoo gën a jamono. ni ngay demee ci ñi lay yóbbu nga naan maa ngi tuddee alu mbégte kon xam nga ne kon xam na la doon jëriñ lu mu fa wut ak bu mu xam na la mbégte lay am. yàlla dimbala ñu tuddee ñu suñu tur woowu muy Cheikh Modou Bachir moo tax ma ne ñun fu ñu di wax dañoo war a dolli njukkal suñu waajur ndax tur dafa foor koo fonk doo ko tuddee koo bëggul doo ko tuddee koo amul yaakaar doo ko tuddee ñun suñu waajur dañoo bëgg sëñ Bachir fonk ko yaakaar ko tuddee ñu sëñ Bachir muy la nga xam ne du suñu njàmbaar ñoom lañu dolli njukkal gi ak sant yàlla dogal suñu tur woowu suñu borom tànnal ñu guddi. ndax li ma wax origine suñu daayira bii mooy sëñ Moustapha Bassirou xam ne ku ne xam na ne mooy jàmbaar sëñ Bassirou bu mag ndax ku ne xam ne jàmbaar la ak ñay xare moom moo nañu woon ndax suñu bàyyi ñu ndax fekkewuñ ko mais dañu koo nettali dafa am lim ba nga xam ne ñoo daje woon ñoom siyaare ko lim boobu président ay Bassirou mu ne leen seen jataay gi de dañ ko woon def daayira daayira turandoo sëñ Bassirou daayira turandoo ci yoonu nja turandoo sëñ Bassirou ñoo ko njëkk a taxawal mille mille neuf cent quatre boobu ñun ñëpp ay tuut tànk lañ sëñ Moustapha nañu man de bëgg ma bëgg sëñ Bassirou moo tax soo ne Moustapha yem ci képp duñ xam ban Moustapha mais soo ne Moustapha Bassirou nga xam ne sëñ Moustapha Bassirou nga wax jël bis bu gën a mag ci yi nga xam moom la sëñ Bassirou bëggoon muy gàmmo ngeen koy daje moo tax may la cant yooyu dafa bokkaat yeneen cant yi li ñu war a cantaa suñu waajur yi. bisimilah tey nag euh, ko waxee rek ñu ànd ak ñi nga ne ñoo ñëw fi def li nga sallam euh, di gàmmu gi euh, tey si kër euh, bu baax di leen wax ne rek wax dëgg yàlla moom nañ ko gisee rek mooy gën a sant yàlla gën a yaakaarit sëñ bi ndax xam ne liggéeyam moom asar benn yoon ndax ku gis lii rek xam ne moom liggéey moom liggéey bu set wecc la liggéey bu ànd ak barke la te it ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm la loolu moom duñ ko wax kenn képp koo xamante ni teew nga ci barab bi rek wala gis ay mbindam dara rek xam dara dara dara rek cim njàng da xam ne yonent bi sallallahu alayhi nangul na ko bu baax baax ab liggéeyam ñu ñëwoon nag tey jii ngir barkeelu ci liggéey di ñaan rek suñ borom mu dolli ñu ko fayal ndax wax dëgg yàlla moom ñëpp teg nañ ci seen bët amatul lu ñu wax li ci mata lépp wax na ko waxkat yi it li ñu war a wax yëpp wax nañ kon lu ñu def ci lu may di ko sant di ko gën a tiitaroo di gën a ñaaxu ci moom di ñaan rek suñu worom mu téel ñu suñu taalibe ci sëriñ bi nangu ñu suñu taalibe di leen sant bu baax di leen gërëm macha allah. kontaan jeexee fa lañ tàmbalee parce que lii rek mbégte la parce que lii rek mbégte la nga toog ñëpp bàyyi seen yite ku nekk am nga loo waroon a dox bàyyi sa yitte ñëw rien que pour ñun que pour ñun loolu contentement laa ciy am di di ñaan ñu yokk ba yëg chaque année comme niñ ko defee woon daaw dañ ko def mu validé ñu ne ren déwén kat incha allah bëgg nañ mu gën a validé ñu ne déwén bëgg nañ mu gën a validé daan ne carrément déwén nañ doxalee nii ak nii te ban ko ban ko defee tey mi ngi nii daaw lii lépp amu ci woon kon xam nga ne yokku nañ te dañuy ñaan yàlla yokk ba yëg ko li mu ci gën a amal solo mooy ñu ngi ñaanal suñu borom kër parce que lépp ñoom la ñoo ñu dooleel parce que fii moom moom Touba ñoo yaram dëkk sëñ Touba la. soo wootee ñëpp ay ñëw loolu rek contentement la lii rek mooy waral ne ñun ñëpp ay murit lañu parce que njaareem ak jur bi ku ne njaareem wax jurbel tey ji kon tey ji bu nu wuysee Mouhamed moo tax tey ñu ñëw kon loolu mbégte laa ciy am. jërëjëf mbokk yi comme ni leen ko waxee rek euh, ñu ngi woon tey ne moom mooy kër gu mag euh, dugg euh, nga xamante ne tey jii fii nga xamante ne mooy si Jurbel di fi nga xamante ne moom mooy kër gu mag nit ñi ñëw def li nga xamante ne moom mooy ziar gi ziare fi nga xamante ne moom la xaadim rasul doon dal ganalee ki nga xamante ne moom mooy rasulullahi mu ko fi daan fekk si bés ba bés boobu noonu ak barab bi nga xamante ne xaadim euh, rasool fii la euh, génne àdduna euh, kon nag ñu jàpp ne ne tey jii nii guddi gi jeexagul da ngeen ñu toppee rek di ngeen am li nga xamante ne moom mooy jàng yeeg li nga xamante ne moom moo fi xew yëpp si biir guddi gi incha allahu rabbi nit ñi nag dañuy gën a yokk di nga xamante ne Euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ziare seeg yooyu noonu yëpp guddi gi incha allahu rabbi di si topp tey jii euh, li nga xamante ne moom mooy zikkar yeeg euh, tant yeeg yëpp di ngeen ko gis incha allahu rabbi bu ngeen toppee li nga xamante ne moom mooy info 7 TV incha allahu leen ko bàyyi dee leen si ànd ak li nga xamante ne mooy info 7 TV ni ngeen ko déggee noonu guddi gaa ngi wàcc incha allahu rabbi topp leen ñu ñun dëgtal leen li nga xamante ne mooy xew si biir li nga xamante ne moom mooy gàmm gi ba mu jeex tàkk si guddi gi rasulillahi sallallahu alayhi yaram ñu koy fekke ay at yu bëree bëree bëree bëri incha allahu rabbi jërë ngeen jëf